waaw tristesse rek mooy naxar ak tiis comme ni ñu koy waxe di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'una nga xamante ne loolu mooy euh, masawu bi nga xamante ne nii bu ñu nit génn na àdduna loolu lañuy koy waxal di ko delloowaat suñu xel ak suñu lépp ci suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom jëmadu wal arda moom mooy yor ay dogalam di ko wàcce si waxtu wu nekk di indi bakken ci àdduna ci waxtu wu ko nekk waaye di ko jëlit ci waxtu ko neex ci àdduna te ñu nit ñu ci ànd ak sant yàlla bu baax a baax a baax dellu di ko sant moom mi nga xam ne moo ñu ko joxoon su ko jëlaatee dañu koy santaat dolli ci liñ ko doon sant waaw li xew moom euh, phénomène la comme ni ñu koy xame ñun ñëpp phénomène la phénomène la boo xamante ne nag ñun ñoo ci gën a mettile ndax li tax ñu gën le mettile ñun dañoo dëkk ci gox boo xamante ne dafa jege géej dëkk ak ay demkatu géej dëkk ak ay mool ndax tey jii fi nga xamante ne nii drame bi foofu la xewe eh, ñun ñi dañu fa la ñu dëkk muy tefes donc moo tax mettiwaay bi foo xalaat rek foo ko natt àgg na fa waaye comme phénomène la boo xamante ne dafa wàcc ci réew mi te ku nekk xam na ne kenn mënul identifier ba tey jii wax ne lii moo waral dem gi ndax bu fekkoonte ne dañu ne ci cadre liggéey la am na ñoo xamante ne dugg nañ ci li ñu fi bàyyi moo gën fuuf bu ñu demoon tey jii fa ñuy bëgg a dem lañu fay fekki ndax ñu ngi am ay revenu ñu ngi am ay retombées ñi ñenn ñi tabax nañu seen kër am ay soxna xam nga ki tax kii ki nga xamante ne mool la di dem géej góor góorlu ba dem jënd këram tabaxal ko boppam takk ñaari soxna am njaboot di xëy di joxe dépense këram di dem géej di teer kooku nekkul ne wàllum. liggéey ñàkk liggéey moo tax muy dugg ci gaal gi waaye mu bàyyi fi loolu yëpp dugg ci gaal gi yàlla def sori sax yàlla def li muy def mu faatu ci koo xam ne da daan def ay guddi yu bari ci biir géej loolu lu ko gën a metti amul moo tax drame bi foo ko natt ci mettiwaay rek passé na fa mbuur foo tourné ñu ngi sëngeem ñëpp a ngi jooy ndax suñuy doom yi nga xam ne ñàkk nañu leen ñuy ñaan yàlla nag euh, vraiment yi ñaan yàlla yàlla delloo si waat xelu xale yi tay ji ñu xamne li ni choono ak jafe-jafe rek lay indi ci seen mbokk ci lay indi ci seen askan ndax bo xolé depuis demb ba légui barke demb kenn teddul nyu ginek gëmmul beut ñu ngi nekk ci la nyu nekk mu nekk tiis nekk naxar waye nak ñuy wat di santat yalla bu baaxa baaxa ba xam nga man sax au delà de ça réflexion bi dafa wara dépasser fofu parce que bu fekkentene convoyeur yi ñaar ba ñetti nit lañuy doon wara coordonner plus de 300 personnes loolu dafa dépasser wara dépasser khalat bobu parce que gal comme niñ koy waxé gal tank yaangi koy défar tek ko ci kaw ci kaw ci kaw geej rek manam djel nga yow tek ko ci kaw gal gi keuna dina dem dina ñew loolu kese say khalat ak say yaakaar fofu lay yem waye gal gi dem ak bi ñew ak bi joggé fi ak bi ag lolu si dogal sunu borom la nek moo tax xalaat bi dafa war a dépasser même les convoyeurs xalaat bi dafa leen war dépasser parce que man fi mu ne nii li ma jàpp ci xalaat bi ma jàpp que ne tey situation bi moo loolu moo ko freiner il faut l'État du Sénégal mu jël ay responsabilités avec les États européens plus particulièrement l'État espagnol signé ak ñoom ay accord yoo xam ay accord de principe yu dëgër këcc lay doon ay accord béton à ce que tey jii gu terre dans les îles des Canaries wala mu terre un peu jóge Sénégal terre Espagne fu mu meuna don ñu jëlat len yabat len ci ay avion delloosi leen tant que defuñu lolu ci ful ak fayda xalé dañuy continuer di dugg ci gal yi parce que mënuñu len arrêter mënuñu da ngay tok ak nit di waxtan di nan ataaya fekk téléphone am sonné mu jog déplacer wu wax ñaari baat ndekete magay wax waxu nu mu démé lolu phénomène la bo xamné ne kenn mënu ko arrêté té man xamna ni côte bu Sénégal bi amuñu fi tay lo xamné mën na fi tok di sudu def surveillance ba gaal yi duñu jaar fi di dem parce que lo wax dem leen jappi jeun andil ñu pour ñu ndawalu ba paré nga mëne a contrôler gaal yi dem Espagne ak yi wara dem nappi donc c'est un problème motax man lima japp sama xalaatu bop la nak l'état du Sénégal doit prendre ses responsabilités wax ak les états européens bu ñu xale yi jógee fii dem foofu bu ñu àggee ñu yebaat leen ci avion wala ñu yebaat leen ci bateau indiwaat leen fii biir Sénégal ku fiy joxe sa 500000 wala 300000 mu leer na ne soo ko joxee boo déggee ci gaal gi boo àggee Espagne ñu delloosi la di xool foo koy def feneen moi je pense que phénomène bi loolu mën na ko freiner. waaw léegi nag processus su processus su cimetière bi nag li ñuy wax rek dañu siy félicité ki nga xam ne moom la yàlla def ci bopp euh, dëkk bi muy monsieur le maire Cheikh Issa Sall ndax bi mu déggee affaire bi ba tey toogul. ndax depuis semaine bële passé am na fi gaal goo xamante ne nii dem na ba fi may wax ak yow nii xamuñu ñaata nit ñoo ca nekk xamuñu fu mu nekk xamuñu fu mu teer tey tey jii lay def vingt-huit jours ci géej gi loolu metti na boobu ba léegi moom lu mu mën mu ngi koy def ñu xëyaat lii dalaat ci ci kawam mu jóg nag am ci taxawaay bu ma sëkk moom ak équipe service yi nga xam ne ñoo nekk yëpp ci département bi plus particulièrement suñu service bi nga xamante ne nii ay jàmbaar lañ may ci occasion ci lii di leen félicité muy les sapeurs pompiers taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk service di d'hygiène mu ngi ci euh, police mu ngi ci gendarmerie ñu ngi ci depuis boobu ba léegi kenn nelawul le procureur ñu koy féliciter aussi di ko remercier moom aussi taxawaayam rafet na ndax monsieur le maire jóg na ak tànkam dem seeti ko waxtaan ak moom si lañu ñu solution xalaat ne fi mu nekk nii enterrement commun la ñu mën a def pour que ñëpp ñi nga xam ne xalaat nañ ne seen doom duggoon na ci gaal gi buñ ko fee bu feeñee ak bu feeñul dinañ xam ne ña nekkoon ca gaal ga kat ñi ci jot a génn te ñu gis leen ñu ngi leen denc barab sàngam loolu moo tax monsieur le maire jël décision boobu ñu ñëw fi nga xam ne mooy cimetière Liberté ci biir mbuur nga xamante ne cimetière bu bees la bu yàggul ensuite am na espace ñu defal leen fa benn espace boo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo faatu ci gaal gi ñoom lañ fa denc. diggante si suba ak léegi depuis 7 heures du matin ñu ngi commencé woon la ñu jël yi ñu ñëw di gas kër yi. defar nañ kër yi comme ni ñu ko waree mobiliser nañ aussi ay imam ñu ñëw taxaw fii koor bu ñëw ñu taxaw identifier la xool say mbokk gis la imaam yi taxaw seeni mbokk jox euh, imaam yi ndigal ñu jullee leen li nga xam ne moom la suñu jullit loolu la ñu nga xam ne moom la ñu baaxoo imaam yi jiite jullee néew yi ñaanal leen ñu denc leen ci ni nga xamante ne mooy anam bu sell loolu moom si suba ak léegi loolu la ñuy def fii fi ma taxaw di wax ak yow nii ci biir fii enterré gum nañ fii vingt trois corps yoo xam ne majorité bi yëpp seeni borom gis nañu leen donte am nañu dëkkul mbuur waaye seen i mbokk nangu nañu pour ñu denc leen fii ndax état bi nga xam ne foofu la corps yi toll. loolu moo tax ñoom ñëpp ñu accepté donc li ñu fi def dañ ko def dans si transparence def ko ci ndigalu seeni mbokk. parce que nit su xasee faatule mbokk fa xasee faatu mbokkam rek moo mën a jël décision ci kawam loolu la ñu ànd di ko coordonné ak service yi nga xam ne ñoo fi daje ñëpp ñu def ko ci jàmm def ko ci dal def ko ci yar ak teggin boobaak léegi gis ngeen oto yaa ngi dugg di génn sapeur pompier fi mu nekk nii ñu ngi ci biir haute mer di seetaat ndax di ñu gis lu ñu gis ñu andiwaat ko préparé waat yeneen espace yoo xam ne ak ay kàmb lañ bu ñu ñëwee ay kër suñ ñëwee bu soobee yàlla lu ñëw rek ñu tàbbal ko ci depuis ci suba léegi ci loolu la ñu nekk ci ndigalu ki nga xam ne mooy borom dëkk bi muy monsieur le maire Cheikh Issa Sall di fàttaliwaat waajur yi surtout ñuy gën a waxtaan ak xale yi di leen gën di jege kuñ ci gis mu yor comportement yoo xamante ne nii yoru ko woon ñu commencé ko jégué di waxtaan ak mom di xol ay appel téléphoniqueum ak yu mel nonu parce que tamit ñom war nañu mëna jappalé xalé yi conscientiser leen waxtaan ak indi wat seen xel xamal leen ne leen fee ngeen di bërti bërti di fa dem amaana sax mën ngeen faa dem ba ag té du ngeen fa régler ben problème parce que ñun ñu ngi dëkk ak ay frère am ay frère am ay cousin am ay xarit yo xam ñu ngi joggé fi duggu jaar aéroport duggu ci avion wacc Espagne té fi may taxaw ni di wax ak yow dañuy oté di la wax seen ay soxla nga di régler donc amul dara lu ñu fi xëccoo wala lu ñu fi fiy yàkkamtil wala lu ñu fiy njëkkantee nit fu sa wërsëg nekk incha allahu taala boo teyee dina dina ñëw ci yow. ñu lu aussi toog ci dëkk bi parce que dëkk bi li muy metti metti metti metti metti boo fi toogee di am sa lu ndaw lu néew lu mu néew néew néew di nga nekk ak sa njaboot di nga am vie de famille di nga yar say doom di nga nekk si sa si sa wëti euh, wayjur te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne si ay mission lañu ñun ay jullit ñu war ko tamit préserver bañ a topp outil bi outil bi rek ba tax ñuy dem ci nu mu ñu neexee wala nu ñu ko sentiree nañu waat wat xel. may waxaat sama mbokku jeunesse bi nañu toog ci dëkk bi garder waat espoir ensuite ñu gën a bàyyi xel xam ne fii yàlla rek a fi nekk. te lépp loo xam ne nit am na ko yàlla moo ko dogal ci moom te lépp loo xamante ne war na ñëw ci sa wërsëg bis ba nga juddoo la ko yàlla moo ñaale ak yow yàlla gëmmul nelawul te yàlla bàyyiwul kenn ñu gën a góorgóorlu gën a jàppante xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk ensuite ñu ñaan yàlla sunu borom wat xelu xale yi wat xelu wéyjur yi parce que am na wéyjur yoo xam ne ñooy jël seen natt jox ko xale yi ñu dem passé ko loolu aussi beneen phénomène la Euh, responsabilité individuelle bu nekk ci mbir mi boo xamante ne toujours rek soo bëggee ko régler rek loolu day ñëw taxawaat ci sa kanam indil la problème. parce que tey ki nga xamante ne ni dafa xëy dem di liggéey xaalisam moom ko seeti benn nit jox ko ko ne ko dama bëgg a yéeg sa gaal pour dem Espagne loolu responsabilité individuelle la. donc il faudra vraiment aussi nit ñi jàppalante suñu biir ñu gën a waxtaan gën a jegewaat xale yi gën leen a waat euh, dalal pour que incha allah ñu mën a toog ci dëkk bi ensuite état bi ñu gën a góorgóorlu gën a góorgóorlu ci xale yi gën a góorgóorlu aussi ci li nga xamante ne ni moom la espoir bi xale yi amoon ci ñoom parce que tey jii xale yi dañu am espoir ci état bi ba nga xamante ne ni dañoo jóg massivement dem voté leen ànd ak ñoom kon tey jii un retour amul état de grâce amul xaar nañu góor góorlu lu ñu mën nañu ko def ci dimbali xale yi pour que ñu toog ci dëkk bi te loolu war na mën a nekk leneen li si des nag mooy les accords yi nga xam ne war nañ ko am ak les pays étrangers yi nga xam ne xale yi fa la ñuy buubu di dem ñu wax ak ñoom lu leer ba pare ñëw teg ko sur la table wax ko ak population bi ni ñëpp xam ko xale yi xam ko toog fii ci dëkk bi yàlla mën nañu ci defal jàmm incha allahu taala merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax a baax di ñaanalaat ñi nga xam ne ñoo fi jógee yal na leen yàlla sunu borom teeru ci yërmandeem te xaare leen àjjana te ñi nga xam ne ñoom la ñu fi bàyyi ñu nekk fi yàlla sunu borom teg loxo ci ñoom seen njaboot yi fi des yàlla teg loxo ci ñoom yàlla sàmm leen suturaal leen yokku leen xéewal te teg loxo ci ñoom garder leen ba nga xamante ne du ñu réccu dara li nga xamante ne seen waajur yi fi nekkoon jóge fi ñoom la ñu àndal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm